Votre bulletin d'information communale, BIC. Anzubillahi mina shaytani rajim, bismillahi rahmani rahim, bismillahi mashallah. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di sant sama ñaari di sant ñi andal tay di sant suñu borom moom ñu may ñu Dakar ba yegg si fii Thiès di sant ñi ñu fekk fii macha allah man la présidente fondatrice Mouvement Lumière d'une vie

di sant équipe bi ma àndal nii ñii ci sama ginnaaw ndaxte bu lii amee tey ñoom la man kese mënuma dem bu amee tey ñoom la seen yaay seen mag yi ñu ñu xam ñëpp ñoo ci jàpp ba tax lii di mën am ñuy sant aussi suñu meeru commune muy Abdoulaye Diouf saax ma bëggal ko sama bopp bu ma koy wax sax duma ko bëgg bokk ak kenn Mashallah, allah il est un maire au service de sa commune mom moñu suis bañu ba ñu sans oublier le docteur Daf Moussa Sam Daf bu hôpital Dalal Jàmm Nous ak ñun biir un ñu nek jeune di ci développement communautaire pour œuvrer pour des actes citoyens participatifs et constructifs comme nous kay waxé tout le temps. mu uuf ñu nag ñu nekk ñun yow la ñu gis yow la ñu doy kaay uuf ñu ñu àndandoo ñu defar suñu Ouest Foire defar suñu Sénégal ëllëg defar suñu ndaw macha allah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. lu choix boobu dafa fekk man ak maam Diakité mii nii dañu daje ci benn mouvement soppe Marième fay Sall la tudd ñu def ma secretaire général bi te bañ ma koy fal fekkewuma ko. ñoom ñoo xool ba gis ne doy naa leen lu ñu bëgg a liggéey man war naa leen ko mu liggéeyal ñu def ma ka ma fekk ko foofu ci mouvement boobu noonu ñu nekkandoo mu doon bokk ci sage mouvement bi lépp lu ma am wala su ma nekkee ma war a def projet par exemple dama waroon bindu benn projet ma ñëw ma contacter ko ma wax ko ko ma wax ko ak ñi nga xam ne képp ku ma nekkal ci mouvement dama ko fa dugal wax ko ko la ma doon séntu nag ci moom mi laa ko amee wax dama ko wax à haute voix li nga xam ne moom laa doon wut moom moo ma ko joxoon textuellement ma sant ka si di ko si gërëm macha allah loolu nag mooy li taxoon ñu ñëw fii nii ndax man ku ma defal teraanga dama la koy delloo waat te du yem fii nii kese du benn bii nii kese dañu fiy dellu si waat bu neexee yàlla te projet boobu ki ko ki ki nga xam ne moom moo ko jiite woon bindoon ko tamit mu ngi nii taxaw suñu wet muy sëram muy grande sœuram Sabel donc kon cela veut dire que ne c'est nous dans nous boo amee nit yi am nga lépp lu ngay wut ci àdduna ndax dara du la jafe macha allah.